te la xamee boppam léegoo-léeg kilifa jox la loo xam ne mérité woo ko yeewoo kilifa jox la ko te yeewoo ko te nag demi ca su bëgg raamee ca buntu këram bëgg Omar Fouti ne ko tey laa doon a xam ne sama ndëgg gi yàlla xamal na la ne ko waaye tey ma jur ni baaraam loo bëgg ma loo ma tere ma bàyyi ki la am baax daal bàyyi ñi mën nañ loolu dañuy def sax seen noonu parce que yi la sañ am noonu mais ñi amuñu sañuñu am noonu kii bañul ku ko bañ mais moom du bañ gàtt bañul nag ku ko bañ bu la neex rek nga bañ ko waxal ci moom du la neex mais moom bañu la parce que pays yi ñuy dund laajul mbañeel ku war a boot ñëpp il faut nga boole te da yàlla daa war a boole boo bootul rek war nga yàlla boo bootul war nga yàlla ndax daf la boot loo te seen maqaaba xamul wor ak sa Cheikh Mati Yane Sali euh, li ci des dama koy tëjee gërëm sunu sëriñ alaaji Baaba Ba wax naa leen ci moom lu bëree bëri wante ni jaay dama am ci moom lu jafe tey jii téere bi maa ko defal muqaddima maa ko defal bunt maa def bunt yi yónnee ko góor gi dafa góor gi Malick Sall ne ko na liir muqaddima bi li ma wax ci ma ustawaanu sa sa liggéeyam ci biir nekk dinaa ci lu bari li ma wax ci téere bi muqaddima bi na ko liir bu ko neexee ñu defal téere bi def ci muqaddima bu ko neexul ñu bàyyi ko mais dafa kontaan ba yokk téere bi dafa ay wayu beex def def naa ci mujj ne danaa ko mos a sara benn yoon la ma wax ne ma sara da nga waxoon sara jublee góor ci ma ne ko jublu gu ma jëkkee def mais fekk dama ko bàyyi dama bàyyi saraaba dama ko bàyyi ko ko sara mais am ci wey bu nga xam ne mbokk yi mag ñi seen bind ñoom rek ñoo ko seen bind ñoom rek ñoo ko wax na ci biir téere bi ci Cheikh Matiane Sali wax ni Cheikh Tidiane ay mbiram am na luñ ci loo xam ne wax ko dafa araam wante am na loo xam ne dañ ko war a wax dagal nañu wax fa minhu ma yaxilu lana bi digratihi kama fi imla imaamin bilaya wala nu bali bi mun kërin wala mu ne danaa ko wax tey nag te diisalu toxal ma wax ko bu la neexee bañ ma bu la neexee bëgg ma dinaa ko wax bëggal bañal dinaa wax kan muy sama dem foofu am na fa ñaari way yow bi ma bindee muqaddima bi dama leen jaxase woon bàyyi lay moo leen jaxase woon lam te corrigé ci muqaddima bi mooy rancé waa ñaari way yi benn mën a ne palan te mooy fa minhu anna lahu min hen xaalis bi te mawti asxaabi bi min alkaramat mu ko baax na mu ne am na lu dagan ñu wax ko li dagan nag bokk na ci def ne bu yàlla may Cheikh Matiyaan bu Diakhir ti bu ay taalibeem di faam ñaari way yooyu dañ leen jaxas woon ba del bii teg yi ca corrigé ca am na fa beneen baat bu mu corrigé ca la euh, euh, euh, fa may waxee naan si Ahmad Tijaan yi ma demee Maroc sa wéy naa fa ci kanam Cheikh wéy naa ko fa boo xam ne fa may fa may waxee naan fa misul صلاحي الى حضر بمداد الفال ان تاتي برياتي وي بجت اپنا کلا ولكن لا يماثلهم بل هو كل يوم بين حق حق كار بو بايل اي دفو جوك دف كالون ها اي دغل لا غورجي كو ساتي نيت بقديمه بيم بيم بيندون نيت يوم ما داس تاكو ما جوك نك لما تاجوك موي بروال نل رك غورجي كون داكو رو دتي بنم سلام واي لكي بابا سمو كو سلام taraaba bu baax gis nga Fadel moom moo firil buy boo xam ne xaw ma ko moom alaaj dama xam ne loolu bu amee bëgg gum bëgg ki may seet si moo tax mu jox ma sérité ba maa jowla laa jox na ma sérité bu rëy pour ma indi leen ko Cheikh Mat ni mu faatoo ba am ñaar fukki fan ak ñeent jotoon gént mu firi sax alxuraan bi ci benn guddi boobu am na benn quatre jours la am ma gént mu firi alxuraan karim ba mu yàlla yàlla teel bii maa ngi naan Babacar nerew ma bii xam nga dafa am ci xasida bi benn way bu ñuy wax man halu rijalillaahi mahal abdaani wa kullu waliin ma jëfee ko toogal déedéet ka saakir awsaad wasaawir ko toogal man hal xam nga ñun gerte lañ koy firi góor gi nee na ma du gerte tey nee na ma du gerte donc lan mooy mën xel ma ne ma station Cheikh yaa ma station nga liggéey station defe naa ku ko xam rek gaase wax la nga fa station nga fa liggéey la nga fa لفك بالإساس قلنا منهل بفيريول جيك إساس ولا يفير إساس ولا بنأ من إساس ولا ليه دي مو موجودة ما ينال شاد آه دكتور حلو جريجة لما رجع المو بوقت لما نجوا di gis googu mooy di gis nga xam ne bant yi mooy matt mi ñuy taxal ci xoli sàng yii seen xol càkk borom sawq yi fan la ñuy taxalee seen xol ñu am yàlla bàyyi xalifa jaar na fa moo tax mu ne sawqu tijaan yi saada fii mu jël yii iqaada nee na ba mu fa yeggee te la xolam liggéey yokk tàkk tàkkal boo xam ne mu koy tàkk bi bi mu dati xob ja ngelaw lay liggéey ci xob ya mooy seen mooy seen mooy ngelaw li liggéey say upp ndeke ngelaw bari na njëriñ mooy seen régulateur boo xam ne bii seen température ba ñu waroon am ba seey xobi liis ga moo koy transféré moo koy upp fuñ jëm station ba lay jëm et ça je me suis remonté à moi gérant سير انا بدا استاسيون كاين لك كاين دوخ يدقل اوردر ويش احمد يعني من يلا كو جوخ من فوق وانا رك من النكتة مي استاسيون بيخ مو جوخ مثل مثل ابدالي الابدال والاحتاب والنقباء والنجلاء نمن لفاي جوخ لفاي جوخ كريم ndigal ñu nattal leen luñ dox say nataal seen foofa lay joxe ordre yi ci jox nañ ko dix xam nga oto yaa ngi daal kenn bokk la sama lu jënd ci cinq litres ci vingt yi ci cinq litres ci rusal tene dama xam rusal tene إرسال طريق من حضر رجال الله كساك الأوطان وصدق كتما نطلع لن لبق تبقى تبقى من يقول كده والله دسي لا إله إلا الله من إستاسو بي كاكوي سير مو شامت يام تري سو جام نان فانا سو كي يدوني نيت دوني نيت ay malaka ni sokle ñooy joxe kër yi. mu mu ne ma moo dëppoo. wóol mu xas wóol wóol mu xas antal mu xas mu. dëkk foofu ma nga ma nga ca géej ga. ma ne ko géej gi fan la bàyyi ko. mu ne géej gi benn jatbal la. xam nga du jatbal. saaru benn waame la. boo bàyyee ko ci barul muy di akbar. ma nga bàyyee ko ci barul muy di akbar ba nga xam ne salaatul faatiha فلم يكن حرك مدنك من الأوجن أبو عسيه مطيا دلا رفا دب نجري دب راسا مدنك مدنك أيبا أرف بل أرف لو حروف المنقطعة لهون سيخ مولا دجري بمنك ترابا من الدول أن النار يكون بحر مويد الأكبر من بحر محبة رسول الله من بحر محبة رسول الله بحر محبة رسول الله قد خمت تلين بيدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mu ne fala fala fala fala fala fala kii ba bàyyi ko fala affaire ba bàyyi fala fala jatwal ba jatwal nee na jar nee na jar jatwal la tudd waaw mën nañu ko tuddee géej mais du géej jatwal la te mu ne jatwal boobu nag pour nga xam ne yàlla moo rëy nee na man na juróom-ñaar fukki junne farsax farsax bu ne ëppee ne adduna juróom-ñaar fukki junne yi te ne matul géej man alaaj baa ne man ak bii muy wax te ah. station bi nga xam ne def si installé dana installé mbiram da tibb da jox gaa yi nee na yaa matul géej da ci géej yàlla yi parce que jadwal la mu ne man na juróom-ñaar fukki dina par sàq par sàq bu ne man na adduna juróom-ñaar fukki dina mais te seex boo koy commandé mu ne foofu maqaama boo fa seex toogee mu ngi tudd maqaama jalaaliya mu ne makkaama jalaaliya mu ne ñetti junne jëmm euh, ñetti junne jëmm ak ñetti téeméeri jëmm ak fanweer ak ñett la si am ñoo escorté géej loolu mosuma xam ne Cheikh Ndiane Soro moom koy yëpp mosuma xam ne Cheikh nekkati moom kenn xamul lu mu xamoon naa kenn xamul lu mu doon mai am na ci makkaama jalaaliya trois cent trois mille trois cent trente trois jëmm ci makkaama jalaaliya mu escorté nag euh, ba baxul sant boobu nga xam ne moo moom mooy mooy mooy réglé ci tàngaayu jant bi ak téeméeri jant. rajo ba ca wéy boobu. moo tax mu ne man xëldori jallim ay kon seex mooy station góori yàlla yi ñoom ñëpp ci li ñuy génnee ci station ah. man ko ñoom rek mu ne ma góori yàlla yi yàlla amul nekkul waa tariq rek tariq si jaami yàlla yi mais balaa kenn ma datek da ak foo mënta nekk te nga ah, <laughs> ne bu mu ne bu mu ne ma bu bu ñu bu tëj bunt yi. tànk doom ku ne dem ca bëgg a dem sa borom daan xam kan muy Cheikh Ahmad Tidiane daan xam kan muy Cheikh Ahmad Tidiane kon nag su ko defee góor gi nee na loolu mooy boobu noonu la ko déggee man alhamdulilah man station góor yàlla yi mais fam ko nekkee muy place bu mooy nekkee mu ngi diggante ba mu ngi diggante mulki ak malako malako mooy asa mooy mooy mooy euh, malakoot am na loo xam ne kenn mu ko nekk malakoot xam nga ñun dañoo asamaan yi ñooy malakoot nekk asamaan yi ñooy sunee malakoot ñooy sunee malakoot yi bokkuñ ci malakoot asamaan yi bokkuñ ci malakoot ñooy kër ga di nga diggante miir bi ak ñaari miir yi mooy asamaan yi miir bi mooy malakoot cetalool asamaan yi bokkuñ ci malakoot gorgel jël bokku yi bokkuñ ci malakoot ñooy diggale ñooy kuur bi ñoy cour bi escorté malakoot kon malakoot kenn xamul mu de dal asamaan yi kenn xamul nu ñuy dee ak seen way te bokku ci malakoot kon malakoot kenn xamul mu de su ko défé digënté bobu nak mu ne góor gi ne ba mu ne ma ak dur kursi mu ne hadal dur kursi قيموا مو أمي حدا بالقدسي من أجل تنال تنال لجو خمي سايو كمين جنب تيانا تنال نيونيو در قدس فقطوبا تنجا بقوة جامو يالا بوي لال بسنجنة با قدس تنال يسرني من أجل تنال بالقدسي mune gis nga mo gëna mo gëna mo gëna mo gëna yéema jant bi seen leen xadartul xu si na moo gën a yéeme bi ndax bi jant bi mën nga koo tëjal nii mu de dem tarif ba nga yaakaar jant amoon mais pour si kenn mënu ko tëjal nii xam nga ji yàggatul nee na nee na xam nga ci dara <laughs> waaw yoo ko leen xanaa itam kursi tey kii moom kenn mënu ko dégal. sànq bi nee na téeméeri kursi kenn mënu ko dégal. boo tëjee ñu gannaaw lal nga ba tagg rek téeméeri dugg nañu. nee na mu ëpp doole ji. nee na sama papa daf ko dugg doon xaram. mu ne tala xamee leer yi ngay gis nii ak yeneen leer yi duñu leer. nee na déedéet. léegi dinañ ëpp doole mu ngi bàyyi ko ci dina bi dem kaw moo ëpp doole léegi yëpp moo leen ëpp doole moo leen leeral itam moo leen leeral itam leeral ak leer yi nekk ci suuf ne am na loolu bu ko bëggee leeral ci jamono dañuy gas ci biir suuf génne si toog dokkutoon moo leeral jamono allahu akbar parce que kon nag laa bee neex a jàngali pël law bee neex a jàngali pël sama nijaay jëriñ maa ngi dégg parce que sànq ñu xam-xam wax nañ ko fu ñu ko war a wax wax dafa jooju ne ko looy jooy mu ne di ma wax ko ñu war a wax waaye tey maa ngi am témoin yi am na ko tëgg mu ne dafa jéggi benn jamono ak ah, ba alaaji Babou Ndaw ne lii muy wax de lu wér mu ne Moustapha Niass moo dikkoon wax ko soxlaam soxla boobale nag mu ànd ak Seydi Alaaji Baabu Daw mu ne ko tey de maa di sa sëriñ maay sa mbokk ndax mbokk mënta paase doom yëkk ak doom wëlla yow yaa di doom yëkk man may doomi wëll mais loolu moom ñun ñëpp xam nañu ko mu ne ko tey nag dama bëgg a nelaw ndax gis naa nelaw lool te li ma Moustapha sas sasu yow mii laa bëgg nga bàyyi ko yow sëñ Babacar Diar mu ne billaahi lasi laa ilaaha illaa hu mu ne ko dogu naa ci dogu naa ne sama kilifa sas na ma te fasuma yéene booyal sama sas mu ne ko ñaata waxtu nga bëgg mu mat wala ñaata fan walla ñaata weer mu ne ko ñetti fan mu ne ko danaa ko def ci ñaari fan ba mu ko defee bi mu ne billaay la si laa ilaa ilaa wa ba mu matalee la ko Moustapha Niass dafa bëgg nguur moom la la sas nga sant ko ko sas wii nag bay naa ko Moustapha dootu déggati daanu le ana Moustapha ku ko mën a daane wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon mbokk yi timis jot na xol sang bi ñu ngi lay joolee siyaar dañu nàmp ci oon picc dëkk li ñu wax ni óolu laa tax ñu wax waaye buñ la wóolu wutoon duñ ko wax gis nga bi ñu ko waxee dëggal bi ñu dëggalal seede yi ñu jox ba bay nañu si ñaar yi alhamdulilah bi alamin kon ñu ngi leen siyaare bu baax ñu ngi beetal mbokk gi di beetal wëllëri di beetal taalibe bi man gëw ma fi ak sëriñ ak taalibe laa fi déedéet ah rek lay wax ñii xam nañ loolu ci man xam nañ ne man dama wax naa ko benn nit fële ca Màkka Dakar toog borom nga xam ne Abdourahmane sa papa moo la yar ma ma wax leen ngeen nekk doomu rox ci moom ñun ñu nekk doomu deret ci moom kon ñun mënul leen yàpp te leen leen war a jox normal leen fonk leen.